Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer وحرمة الآل ما سوجاتي وحرمة البنين والبنات وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل ما زوجاتي وحرمة رسلي والأنبياء والعلماء مهلولي يائي wa hurmati rusli walan biyaai wal hulamai ma halaw li yaayi wa hurmati rusli walan biyaai wal hulamai ma halaw li yaa yi wa hurmatil malaa'ikil kiraam wa hurmatil kahbati baytikal haraam wa hurmatil baytil muqaddasil asiim وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المهمور يا ربي وما يسوره من ملك فوق السماء وجاي كل شيء هدى من ساله أو مرشد أو حافظ أو ناسه وجاء كل من إليك ينسب حبل ما منك جميعا أطلب إن ابن عبد الله فاق كل من abda wa yubdi xaali xussaman hal warastawa man abdahu rahmata kulli bahdama abdahu wujju sabil kirami buydaat bahda mujahadati latin xadaat sullul lazi abal ibadat fala yasal wal maay ma afala barakatul muxtaari laysat tanxarim wa nuuru saatihu laysa yansarim أبعى إلهه تعالى إلا إتمام نوري الذي تعالى للمصطفى وجهته خدمة صفاء بسارة لو دعي نفات للمنتقى وجهته maqad asaba jumlatana lam yardali fasaba hadama rabbi binnabi bina darar ليتوجه وساء خرر ملكني الملك نهم الملك مخجل من قد أمروا أو سلكوا نفع بخدمتي إلهي المعين بقدر ذاتي هيوبي واللحين إن امتدال منتقى لي سلبا خيرا كثيرا بردا فن سلبا لخيرنا مع اللعين سرمدا وليس ينهنا ولا كمدا سقها الشيطان كون المنتقى سيده يلاقي ما اتقى يده للدار خلاص باسمي والهود لا يزول تراه بين السهير والأسى تواف من لما يدر دلزا بين العميم والدريح المباك لا يسأل بسرير نفعه قبل لسوان الله قدر ولا إله إلا الله إلى سواه مقتي لي يدب وساقه إلى سوى النار رب لخيرنا العدا نعت والحسد وتتوجه لخير مفسدا رد مكائد العدا إلى الهدى تقم قبل من هدى جلال ربي تعالى حتى لا إلى سوانا لورا فانحتلا يقي قلامي القطع وسوى باقي كفاني الهدى واللهوى محل في له البرايا وثمن درا نهاني خط خاد للأمن محل في له البرايا وثمن درا نهاني خط خاد للأمن يا الله يا رحمن يا بشير خادر يا رحيم يا نشير rajo yokkal ma rajo yi damaa xaw a sonn démb ba léegi nelawuma faaw nga yokkal ma ko mu dimbali ma tuuti yàlla ya rahmaanu ya basiiru xaadir ya rahimu ya nasiiru yàlla ya rahmaanu ya basiiru xaadiru يا نسير يا الله يا رحمن يا يا بصير خادر يا رحيم يا نسير ah def na ko tey Serigne Touba ñoo ngi siyaare mbooloo fi teew yëpp ginnaaw ban jàngee xasida addiyal ko borom Tuubaa ba noppi di siyaare bu yër sëriñ Moustapha xam sa diine mii nga xam ne at mu jot damay wax jàng yi te li tax ma koy tarde date bi may wax man dama jàngut tubaab léeg lekk seen seex ngunda mii di sama jëwrin moo may dimbali ci yooyu ndax tey rek laa toog muy defi teraanga ne ma jàngi xam sa diine tey la wax ma xamuma le le lan te man yooyu duma ko xam man alxemes laa xam ak ajjuma xam sa diine tamit di ku baax xam sa diine tey yàlla xam na ne démb ba léegi nelawuma démb maa ngi woon Mbàkke jógee fa Serigne Abdou Samad moom soo Souhaïbou bi ma jànguloo bi ma ñëwee daanaka fajar gi day xar ma dem émission boobaak léegi nelawuma ànd ak seen Cheikh na mi mu ne ma nan dem rek bu ñu demee boo barkeeloo ma barkeeloo bu ko defee nga teel a mën a dalal jëmm ji euh, ñun mën a nekkaat ci programme bi waaye koo xamul ni koy def nam la defa tax te xam sa diine sama xarit la ku modeste la ku baax la ku bëgg sëriñ Touba la ba ma ko xamee ba léegi mës sa soppeeku. xam sa diine maa ngi ñaan bés bii yàlla nañ ca dajeeg tawféexu borom Touba barke xasida yi seen Touba yi di siyaar bi wér kilifa yu tedd yu baax yi fi nekk yépp satub sëriñ Corona Diouf Lambaay ak nii muy sëriñ Daam Diouf di ko baax di ko tedd ànd ak sëriñ Cheikh Fall Xattaaba di sunu jëwrin ak sëriñ Saliou Samb waaye seen daam yaag seen Saliou Samb faaw ñu kalaame leen ak sunu jëwriñ ji muy xattaaba xattaaba ndax groupe bépp ak groupe bi waaw nu ci waay mer rek xattaaba la xattaaba kon bu yóbboo ngay xool li ngay def ci ñun bu baax bu normalee yow la bu normalut yow la yaay setub si Cheikh wal xattaaba war ñoo woon yoon cax naa la nag cax naa la sama musdil gi may jàng laa bëgg ngeen déglu ko force musdil xëyri gi may jàng ku ko déglu yàlla nga tà tàggoo bàkkaar nun mel yow xaaral ma wax ko ba xam neex na am déet neex na moom ba dinu sóori ba dil baxaay musdil nuusóori badil nuusóori badil bahay musdil xuyuuri il xusóori badil nuusóori badil bahay مسد الخيور إلى الخسور بعد النسور بعد البهاي مسد الخيور إلى الخسور بعد النسور بعد البهاي bii borom Tuubaa Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer